asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen li nga xam ne moo di naafilay bis bi tey jii di alxamis ñaari fan ci weeru koor gi guddik tey di ñetteel bi guddi sëriñ Sohibu bu wax na ci téere bii di Qurratul Ayni mu ne guddik ñetteel ga ku ca julli juróom benni rakka rakka bu ci ne gannaaw fatiha nga jàng inna anzalnaahu ñeenti yoon qul yaa ayyuhal kaafiruuna ñeenti yoon bokk na ci ngëneel naafila googi dana mel ne ku goreel junniy jaam ak ku jox ndogu junniy ñu woor woddu junniy ñu rafle leele ni ñu xiif des na ko ca bindal itam tiyaaba ju toll na limub njanaaw yi ci adduna yépp te des na ko ca defal ni defal jaam yàlla ya gën a baax ak ñi dee ci xare te deesu ko fitnaal ci bàmmeelam te des ko mbugal itam ñu ñaan suñu borom kàttanal ñu defee ko nin ko santaane dajee ci ak ngërëmam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu